yaa himmata cheikh ihduri lana bi haadha almahdari faltatifi bi nazratin tati lana bi zafari kon ñu ñëw euh, dugg ci biir téere bi te mooy bugyatul mustafid li sharxi munitil murid bu mawlaana al arabi euh, ibn saaih euh, nusxa biñ ciy sukkandikoo maanaam édition biñ ciy sukkandikoo mooy bi nga xam ne al ustaaz muhammad radi gënnuun al xasani al idrisi moom la def ci ñaari mujallad ñaari volume incha allah moom la ñuy sukkandikoo pour euh, firi téere bi euh, turu téere bi nag bughyatul mustafid mooy firi sàkku koo xam ne dafa bëgg a jariñu al mustafid mooy koo xam ne dafa bëgg a jariñu li muy sàkku mooy lii kon tarixa bi képp koo xam ne bëgg ngaa jariñu di sàkku dara téere baa ngi nii li sharxi munyatil murid ci shara ci leeral qasida bu tijaani ibn baaba al alabi bi tudd munyatil murid maanaam mébatu ab taalibe al arabi ibnu saih radiallahu taala anhu commencé ko bismillahi arrahmani arrahim bismillahi ci tur yàlla lañuy commencé arrahmaani yàlla mi nga xam ne dafa fees dell ci yërmande arrahimi yàlla mi nga xam ne dafa sax ci yërmande yaquulu dina wax afqarul abidi ki gën a aajo woo ci jaamu yàlla yi ilaa afwi mawlaahu jëm ci jéggalu boroomam alxani yi boroomam bi nga xam ne dafa woomal bi maanaa soxlaalul kenn dara alxamidi boroomam bi nga xam ne dafa santu maanaa santu na boo ko santut itam sant na boppam afqarul abid boobu kan la ki gën a aajowoo ci jaam yi kan la mu ne muhammad la tudd al arabi ibnu saaih kay doomu saaih waaye nag saaih maamam la asharqi ki askanoo ci wali tudd muhammad asharqi al umari ki askanoo ci seydina umar ibnu alxataab alsahaabi radiallahu taala anhu Euh, alsharqi bi ñu ko laajee mawlaana al arabi ibnu saaih ne ko samaam bi tudd muhammad alsharqi lu tax ñu ko daan wax alsharqi dafa ni dafa àgg ci maqaama ci wilaaya maqaama boo xamante ni moom lañuy tuddee alsharqi amalahu yal na jëflanteeg moom allahu yàlla wa ixwaanahu ak ay mbokkam wa waalidayil jamii ak waajuru ñépp bi maxdi fadlihi ci lu ñu sellal ci ngëneelam fi haadihi daar ci kër gi ñu nekk te mooy àdduna wa daaril karaamati ak këru teraanga ga wal mazidi ak ndollent te mooy àjjana mawlaana al arabi ibnu saih eh, nee na kiy wax mooy ki nga xam ne ku aajowoo boroomam la ndax boroomam moo am lépp te boroomam moo sant boppam moo santu ba soxlawul kenn ku ko sant eh, ngir suufee gi suufeel boppam moo tax moom Mawlaana Arabi Saay mu def loolu euh, aarifine yi nag yi mel ni moom yépp tàmm nañ ci seen bind ñuy suufeel seen bopp waaye liñ ci jublu rek mooy borom bi bu taxawul woon ci dimbali leen ci seen wàllu yàlla kon melo yi ñu tudd boobu moytuwul melokaan yi ñooy nekk ci ñoom waaye dimbali gi leen seen borom dimbali ba ñoom ñu am yenn mart martaba yi ba nit ñi ñee leen ci moo tax ñoom ñu delluwaat lépp ci yàlla wane ni ñun amuñu dara moom nag mu ne yàlla yàlla jëflanteek moom ak euh, ay mbokkam ak waajuru ñépp ci ngëneelu yàlla ci àdduna ak ci àllaaxira mu ne alhamdu mbooleem xaaju cant yi lillaahi aji saxla ñeel yàlla alladi yàlla mi nga xam ne jaala dafa def suluuka tariqi ahli wilaayatihi soobu yoonu ñooñ wilaayaam moom yàlla daf koo def mun yetal muridi muy sàkkuteefu taalibe bi muy mébatu taalibe bi mun yetal muriidi muy mebetu taalibe bi assaadiqi taalibe ba di aji dëggu fi iraadatihi ci namm na mam moom yàlla mu def jàppandu moom yàlla mu def jàppandu at eh, bi wala nga ni jafandu bi ahdil aimmati ci kóllëre kilifa ya ab daali na di way tegtale ala subuli taatihi ci yooni topp ko moom yàlla moom yàlla mu def jàppandu ci ñooñu mu nekk bugyatal mustafidi muy sàkku téefu képp ku bëgg jariñu albaadili ka di aji yulli fi munasaxati mawlaahu ci sellalanteeg boroomam mu yulli ca juh destitaatihi kéem kàttanam naxmaduhu danañu ko sant moom yàlla subhaanahu tudd nañ tudd na mag sellam wa te kawe na an ashraqa ci bam fenkale fi qalbil muriidi ci xolu taalibe bi min anwaaril ixlaasi ci leeruk sellal fi bidaayatihi ci njëlbeenu tarbiyam maa mu nekk loo xam ne tahayya bihi daf ca waaja daf caa waajalee li wuruudi maqaamaatil ixtisaas ngir root maqaamay jagoo ya particularité ya fi nihaayatihi ci mujjantalu tarbiyaam wa nashkuruhu danañu ko gërëm moom yàlla jàlla màgg na wa alaate kawe na an yassara ci bam yombalee li saaliki ñeel aji sóobu yoonu nitu yàlla yi min iqaamati awraadi ci mu mën a taxawal wirdi wal wasaifi ak dog yi fi xaali mujaahadatihi ci xaalu góor-góorloom xaal mooy situation yi mu nekk di góor-góorlu maa mu nekk loo xam ne xëdaahu moom yàlla daf ko ca gindee bihi ca sababu loolu mu gindee ko ca subula xadarati qurbihi ci yooni xadara yi jegeem moom yàlla ci yooni yu jegeem moom yàlla wa mushahadatihi ak ci janoo bi maanaa péeyu contempler ko moom yàlla euh, mu ne mu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo def sóobu yoon nitu yàlla yi mu nekk mébétu taalibe bu dëggu boo xam ne la muy wut dëggu na ci jàppandu ci ñoom itam ci sa sóobu euh, loolu yàlla def ko mu nekk sàkkuteefu képp ku bëgg a jariñu képp koo xam ne yulli nga génne nga yulli bi maanaa génne nga li nga mën ci jéem a sellalanteeg sa boroom sa kéem kàttan mu nag yàlla dinañ ko sant moom yàlla mu sell mu kawe moom ci bi nga xamee ni moom yàlla fenkal na ci xolu taalibe bi ay leeru sellal ci ba muy doog a commencé tarbiyam te loolu ci la ko yàlla préparé ba mu mën a àgg ci maqaama yi nga xam ne dafa am particularité ci mujjantalu tarbiyam mu ne yàlla moom ñu ngi koy gërëm ci lim yombalal ki sóobu ci yoon nitu yàlla yi ci mu mën a taxawal wér di yeeg dog yi ci jamono góor góorlu ba tax yàlla gindee ko ci ba mu mën a jege boroomam am ci moom contemplation wa nashhadu danañ seede an laa ilaha ci ne amul benn buur bu ñuy jaamu ca dëgg illallaahu lu dul yàlla waxdahu mbir mu muy moom dong laa sharika déet benn aji bokkaale lahu ñeel yàlla al munfaridu yàlla mi nga xam ne dafa wéet fi azamati mulkihi ci màggaayu nguuram bi izzati sanaahu ci tedd ngay kaweem wa kibriyaai jalaalatihi ak rëyug màggaayam moom yàlla al yàlla mi nga xam ne dañ koo sellal fi uluwi sultaanihi ci kawek nguuram an kulli ma walis lépp loo xam ne laa yaliqu yellul bi kamaali qudsihi ci matuk sellam wa sumu majaadatihi ak kawek tedd ngaam wa nashhadu danañu seede anna sayidana ci ne suñu sang ba wa mawlaana kay suñu kilifa muhammadan sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa abduhu jaamu yàlla la wa rasuluhu tey yonentam imaamu xadrati jabarutihi te mooy njiitu peeyu jabarut bu yàlla jabarut seydina cheikh radiallahu taala anhu mu koy firi nee mooy diggante asamaan lu juróom-ñaareel ak kursi yi allazi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne jaala moom yàlla dafa def mu baayaatahu jaayanteeg moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla daf koo def ayna mu baayaatihi muy jëmmi jaayanteek yàlla way yàlla def yonent bi salaay mu nekk mazhara asraari mulkihi di feeñu waayu ay mbóoti àdduna eh, wa malakutihi ak alaxiram mën nañ koo firee noonu waaye alamul mulk Seydina Cheikh bi mu koy firi ci jawahirul maani nee na mooy diggante asamaan ak suuf alamul malakut mu ne mooy diggante eh, asamaan bu njëkk ak asamaan juróom-ñaareel kon buñ ko firee àdduna ak alaxira Euh, nit ki na comprendre ni ba tey loolu lay firi allazi moom yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne adraja moom yàlla dafa lem taatahu dégg nga topp ko moom yàlla fi taatihi ci topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam topp yàlla topp ko yonent bi sallallahu yàlla na julli allahu yàlla alayhi ci yonent bi wasallama te yàlla yàlla sëlmal ci moom wa ala alihi ak ci ay ñoñam al athaari ña di way laab ñoñam mooy ñan mooy ñi nga xam ne bokk nañ ak yonent bi sallallahu alayhi ba pare gëm ko al muminuuna min bani haashim al maxsuusiina jadi ñuñ jagleel sharafi ci tedd nga al bu gën baa mat bi gaayati gaayatihi ci dayog ci daytalug daytalum bi maanaa ci ci fu mu gën nga matee wa ala saxaabati yi ak ci saxaabaam yi moom yonent bi sallallahu alayhi maanaam yàlla na salaatu yàlla na dégg bi maanaa yàlla yàlla julli ci ñoom ba tey maanaa waala saxaabati ak ci saxaabaam yi al abraari yi di way baax al mutabawiina ña di way waajal ahla darajaati la gën a kawe ci ay niveau ci ay daraja min maqaamaati wirasatihi ci ay maqaamay donn ko moom yonent bi sallallahu alayhi lu tax bi xusni suxbatihi ci rafetuk ànd gi ñu àndaal ak yonent bi sallallahu alayhi wa kamaali tabliixi ak matuk jottale gi ñuy jottale anhu di jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam eh, na yàlla julli ci yonente bi salaatan ak julli wa salaaman ak sëlmal goo xam ne nan dariju ñu nasu bi sababi ximaa ci sababu julli googu ak sëlmal googu danañu nasu ñun fii silki man ci caquk ña nga xam ne bushira fii silki man ci caquk képp koo xam ne bushira waaw wala nga ni sax ci caqu ña nga xam ne bushira bégaleef na leen minallaahi ci yàlla taala mu kawe mi bil mahabbati ci mbëggeel wal xufraani ak njéggal min ahli yi ci ñooñ topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa te ñu amee bi barakatihima ci barkey julli ak sëlmal gi yàlla def ci yonente bi sallallahu alayhi ñu amee ca ak barar ridwaani gën jaa màgg ci ngërëmu yàlla fii daari jazaihi ci kërug fayam dégg nga wa yi ak këru teralam moom yàlla al arabi saa wax ne ñi ngi seede ni yàlla rek mooy yàlla amul benn kenn kuñ mën a bokkaale yàlla yàlla dafa wéet ci màggaayu nguuram ak tedd ngay kaweem ak màggaayam ba tey yàlla mi nga xam ne dañ ko dañoo sellal kaweek nguuram ci lépp loo xam ne yellul ci sellam moom ci matuk sellam moom yàlla ak ci kaweek dégg nga tedd nga am mu ne ñu ngi seede ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, jaamu yàlla la te yonentu yàlla la euh, te itam xadratul jabarut yonent bi sallallahu alayhi moom mooy imam bi yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne yàlla def na ne jaayante ak moom yonent bi sallallahu alayhi mooy jaayante ak yàlla ndax yàlla moo ne ko inna alladina yubaayicuunaka innama yubaayicuuna allaha yadullahi fawqa aydihim yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne yàlla daf ko def mu nekk feeñuwaayu mbooleem sëkkëreem yi nga xam ne ñoo nekk ci aalamul mulk te mooy fii ñu nekk ñun diggante asamaan ak suuf wa aalamul malakut ak diggante maanaam asamaan gu njëkk ak asamaan juróom-ñaari maanaam àdduna ak alaaxira yonent saai sallam mi nga xam ne yàlla dafa def ne képp ku ko topp mu yonent bi saai topp nga yàlla ndax yàlla mu wax ci alquran ne man yutii rasula faqad ataa allah mu ne yàlla na yàlla julli ci yonent bi saai sallam ak ci ñoñam yi euh, dégg Euh, ñi nga xam ne dañoo laab ñi nga xam ne yàlla daf leen a jagleel ñu am tedd nga bu mat sëkk ca nu mu gën a matee mu ne tam yàlla yàlla julli ci saxaaba yi yonente bi salaay sallam saxaaba yu baax yooyu nga xam ne dañoo waajal ay maqaama yu kawe ci donn gi ñu doon yonente bi salaay sallam ndax rafet gi rafet rafetal ànd gi ñu doon ànd ak yonente bi salaay sallam ak ni ñu doon jottalee dégg nga euh, di jëlee ci yonente bi salaay sallam di jottali ñeneen ñi yàlla na yàlla julli ci yonente bi salaay sallam ci moom Euh, julleeg sëlmal goo xam ne ñun ñu bokkaale ci ñi nga xam ne yàlla bëggalee na leen ne ñoom bëgg na leen te dina leen jéggal euh, ci ñëpp ñi ci ñi nga xam ne topp nañu yonent bi salaay sallam te ñun tam ñu amaale ci barke salaatu ala nabi euh, boobu yàlla di def ci yonent bi salaay sallam ak sëlmal googu yàlla di def ñu amee ci dégg nga ngërëmu yàlla ci kër gi yàlla di fayee ak këru teraangaam yàlla maanaam bi maanaa ñu am ko ci àdduna ak ci àllaaxira mu ne amma baad ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa loolu nag day fekk nga def ko ba pare wute na ak li nit ñi di def mooy dañuy jékki-jékki rek ne ginnaaw bi ma santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te sant goo yàlla ndax sant yàlla goo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax julli ci yonente bi mooy allahuma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sallam wala beneen salaatu ala boo ko defee ba pare nga doog a wax ne gannaaw ba ma sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko wax moo tax moom laa mawlaana al mu musaaih ne amaa baadu ginnaaw bi ma santee yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam fa inna awlaa ma li gën a yell ca la nga xam ne te naafas dana xëccoo fii ca lool al ëkiyaasu ñi nga xam ne dañoo muus wa ajal la ma li gën a màgg ca la nga xam ne unfiqat dundaleef na fii ci loolu badaaihul anfaasi marchandise nokki bi maanaa yi ci ëpp valeur wa afdala ma ak la gën ca la nga xamante ni sarafa wëlbatina ilayhi jëm ci loolu allabibu ki muus ana naxtimaamihi laabu yitteem maanaam direction wu yitteem wa jaalahu te mu def ko al aribu ki nga xam ne dafa yeewu ba tey matmaxa ayni qalbihi mooy xemmeemu bëtu xolam fi layaalihi ci ay guddeem wa ayaamihi ak ay bëccëgam loolu lan la li nga xamante ni moo war a tax nit ñi di xëccoo li nga xamante ni moo gën a cher ci sa ay nokki ak ci say mbir yu am valeur nga ko ci dépenser euh, ki muus yitteem ci loolu la ko war a def ki nga xam ne itam ba tey dafa muus ba tey loolu la war a xemmeem def ko ci xolam ci ay guddeem ak ci ay bëccëgam loolu lan la loolu mooy suluuku tariqi ahlillaahi soobu yoonu nitu yàlla yi al awliyaa yi ñi di ay wëliyu ñi nga xam ne ay allié yàlla lañ wa tamassuku ak jàpp bi ahdi xaasatihi ci kull ñi nga xam ne dañoo jagoo ci wàllu yàlla al asfiyaa al asfiyaa yi ñi di way sell wa naqlul aqdaami ak toxal ay jéego bil mustataa ci kem kàttan min al amaali ci ay jëfee ala asaarihim ci seen ay jeexit wal istidaatu ak sàkkoo niitoo sàkkoo leerloo fi umumil awqaati ci lu ñu joyal ci waxtu yi wal axwaali ak lu ñu joyal ci état yi ci situation yi bi lawaamii bi lawaamii anwaarihim ci way melqati ci seen ay leer mu ne al arabi ibnu saaih nee na ginnaaw bi mu sante yàlla ba julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam na li nga xam ne moo gën a yell pour ñi nga xam ne dañoo intelligent di fa di ko xëccoo li nga xamante ni li gën a cher ci sa temps ci nga koy dépenser ku muus yitteem yépp ci loolu la koy walbati ku ku ki nga xam ne tam dafa muus ba tey li nga xamante ni mooy xemmem xolam li mu bëgg tout temps ci guddee mu bëccëg bi bëccëgam yi ci loolu la ko war a def loolu lan la mu ne loolu mooy nga sóobu ci yoonu nit yàlla yi nga jàpp ci seen kóllëre ñoom ñi nga xam ne dañoo am particularité ci seen boroom ak di toxal say jéego ci sa kem kàttan dégg nga di jéem a jëf pour topp seen ay ginnaaw ak di jéem a leerloo dégg nga ci sa mboolem waxtu yi ak sa situation yow mënti nekk ci seen leer yi nga xam ne ñoom dafay melkati kon nit ki war na jéem tout topp ci ginnaaw nit yàlla yi euh, boo demee ci adduratul euh, xarida bu imam nazif yi li mu wax ne fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabuha bil kiraami rabaahu lu am solo la te loolu ñëpp war nañ ko bàyyi xel nee na na nga niru lu nitu yàlla yi donte meloo ni ñoom ndax jéem a niru niru lu baax loolu bénéfice kese la Mawlana al-Arabi ibnu Saahi ne is bi zalika ngir is ndax bi zalika ci topp wala nga ni is ngir bi zalika ci jàpp ci nitu yàlla yi comme nii ma la ko waxee yata jàllaa ci lay feeñee al abdu jaamu yàlla bi bi malaa irfaan ca sàngaayu xam yàlla wa ci jàpp ci ñoom rek yartaqi lay yéegee ala darajaati ci la gën a kawe ca maqaama ya ca daraja ya ca niveau yu gën a kawe ya min maqaamil ixsaani ci maqaamay ixsaan dégg nga ixsaan mooy rafetal ci luxatan waaye ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon mooy anta abdallah ka annaka taraah in lam takun taraahu fa innahu yaraak man nga jaamu yàlla jaamu sa boroom mel ni yaa ngi koy gis boo ko gisul itam xamal ni moom lay gis waaye incha allah moom ci biir téere bi dana leeral loolu mooy lan ak maratib yi nekk ci biir wa bihi tey itam ci jàpp ci nitu yàlla yi rek yeta xëy ya ci lay préparé woo ci lay waajtaayoo moom taalibe bi li qabulil imdaadaat ci mën a nangu mëdët yi dollentu leer yi alqudusiyat yi yay koyug sell ya bàyyeekoo ci alxadratul qudsi alxadratul qudsiyatu wa yastaiddu te ci lay waajale li talaqi waaridaatil anwaari ci jéema e, am jéema e, dégg nga dajeeg e, yooyu di rot ci ay leer al ulwiyati yi bàyyeekoo ci kaw maanaa yi bàyyeekoo ci borom bi wa yastaiddu ci lay préparé woo li talaqi waaridaatil anwaari ci taseeg dégg nga yooyu di rot ci ay leer al ulwiyati e, yi bàyyeekoo ci kaw wa kayfa laa lan mooy tere loolu mën a am waxum te ñoom nuwaabu nuwaabu rasuul yi ñooy way wuutu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam salla yàlla na julli allahu yàlla alayhi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla na yàlla sëlmal ci moom wa sallama te yàlla yàlla sëlmal ci moom alqaa'imuuna ña di way taxaw dégg nga euh, euh, dégg nga anhu walis yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fil ummati ci xeetam moom yonent bi sallallahu alayhi bi kamaali riayati ci matuk sàmm gi ñuy sàmm xeetam wa xusni siirati dégg nga ak ci rafetuk doxalin al muxassasuuna ñadi ñuñ jagleel bi taxqiiqi qadamil mutaabaati ci dëggal ndëggu topp ga ñuy topp lahu ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fi maqaami daawati ci maqaamay woote ilallahi jëme ci yàlla ala basiratin bu ànd ak settantal bu ànd ak gis-gis kon mawlaana al arabi saaih nee na daal kon jàmm bi bu toppee ci nit yàlla yi jàpp ci ñoom ci lay ko yàlla di ràngalee ay malaan yoo xam ne day xam boroomam yéeg ci maqaama yu kawe yi ci maqaama ihsaan préparé pour mëdët yi nga xam ne day bàyyeekoo ci alxadratul xudsiya moom mu préparé wu pour mën a dajeeg leer yooyu di wàcc tey jóge ci kaw mu ne loolu nan lan moo tax du am loolu day am ndax ci ñim jàpp ñoo ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañoo wuutu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taxawul ko xeetam wi ci sàmm leen dégg nga ak ci doxalin bu rafet ñooñu mooy ñi nga xam ne yàlla da leen a jagleel ñu topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam roy ko ci maqaama wootee jëmee ci yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doon woote jëmee ci yàlla am ci ndigalu yàlla wa daaiyan ilallahi bi iznihi ñoom tam ñu am izn boobu ñoom tam di woote jëmee ci yàlla donn ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mawlaana al arabi ibnu saay continue ne wa inna man lu wér ba wër mooy bokk na ci ña nga xamante ni axallahu wàcce na ko allahu yàlla taala yàlla mu kawe bi min haadihi al maqaamaati yi yàlla wàcce ko ca aaliya zuraaha ca la gën a kawe ca jombaxtal ya waxallaahu te yàlla takkal ko min haadihi lkaramaati ci yile tedd nga bi waadixi sanaaha ci way leer ci leeram kokkan la ki nga xamante ni yàlla ci biir nit yàlla yooyu ak maqaama yu kawe yooyu yàlla daf ko faa yéegal ci daraja yi gën a kawe dégg nga bu dee karaama yi leer la yàlla leer yi leer ya moom ba ca gën a leer la ko jox kokkan la sheyxanaa mooy suñu sëriñ wa ustaazanaa di suñu ustaaz al aarifa ki nga xam ne mooy ki xam boroomam arrabaani kay ko jug boroomam moom sayidna cheikh al waarisa ka di aji donn yonent bi sallallahu alayhi wasallam al muhaqiqi kay aji dëggal donn ba al faradaani kay boroomu dénga wéet al qutba kooku mooy qutb ba dénga le pôle ki nga xam ne moo gën a kawe ci awliyaaw yi aljaamia ka di aji dajale mboolem maqaam maqaama wilaaya assamadaani kay ko jub bi nga xam ne mooy assamad kokkal la abal abbas képp ku tudd ahmad dañ la wooye bàyyi abbas même boo amul doom bu tudd abbas mawlaana mooy suñu kilifa ahmad mawlaana ahmad ibna mawlaana kay doomu suñu kilifa muhammadin muhammad at tijaani mooy mawlaana abul abbas ahmad tijaani radiya yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci mawlaana cheikh wa ardaahu te yàlla na ko yàlla gërëmloo wa mattaana te yàlla nañu yàlla bànneexuloo wa saairal ahibati ak mbooleem soppe yi bi ridaahu ci ngërëmu sayidna cheikh mawlaana al arabi nee na bokk na ci e, ñi nga xamante ni yàlla jox bokk na ci nit yàlla yooyu ki nga xam ne yàlla jox na ko ci maqaama yooyu ñu doon wut la ca gën a kawe bu dee karaama yi la ay leer la moom yàlla bu ca gën leer la ko jox kooku mooy suñu sëriñ di suñu ustaaz di suñu di aarif bi nga xam ne dafa xam boroomam di ki nga xam ne dafa doon yonent bi sallam dëggal ko ki nga xam ne dafa wéet ci ay maqaama xutbu bu màgg boobu bi nga xam ne dafa dajale mbooleem maqaama yi te muy kojug boroomam kooku mooy suñu sëriñ mawlaana abul abbas ahmad tijaani radiallahu anhu mu ne falaxat saara falaxat ci dëgg-dëgg saara mujj na moom naa cheikh radi yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci moom fi zalika kullihi ci lii yépp ñu tudd mujj na nekk fa al alama di fa màndarga ba al mufrada bu fa wéet baynal akaabiri ci diggante góor yàlla yu mag yi ba tax wastaxaqa mu yelloo annidaa ñu woo ko bi raf i ci yéegal maqaamam fi saairi alxadaraat ci mbooleem péeyu yàlla yi wal madahiri ak ci mboolem feeñuwaay yi mu ne ki nga xamante ni ci biir gaa yooyu yàlla yi moom moo ci dégg nga al mufradul alam dégg nga comme ni mufradul alam di wéetee ci naxwu nga xam ne soo ko dee woo dégg nga bin nidaa danga koy rafu danga naan yaa muhammadu yaa ahmadu noonu mu amee firi ci naxwu moom na Cheikh bu mel noonu la am ci biir nitu yàlla yi kon bu la neexee nga ni dafa nekk mufrad alam ni ko ni mufrad alam wéetoo ci naxwu ba nga xam ne heure boo ko woowee da koy rafu moom Seydina Cheikh noonu la mel ci biir nit yàlla yi ràññeeku ci ba moom itam dañ koo woo yëkkati ko wantaxat taxat te mu daytalu ilayhi jëm ci moom Seydina Cheikh riyaa riyaasatu hadha sha'ni njiitu bile mbir te mooy mbirum nitu yàlla yi doon na la isaabati wëlis mbooloo nitu yàlla yi moom Seydina Cheikh eh, eh, mbir muy te mooy eh, kilif teefu nitu yàlla yi bi maanaam nekk dégg nga alxutbul maxtuum moom la waaw riyaas parce que boo nee riyaas riyaasatu xaal sha'ni bi maanaam mooy xatmiya Seydina Cheikh radiallahu taala anhu moom rek ci moom la yam waaw wëlis mbooloo wëli yi kon danga naan wan taxat tem daytalu jëm ci Seydina Cheikh riyaasatu haada sha'ni njiital bi la mbir te mooy wilaaya doonal isaabati wëlis mbooloo nitu yàlla yi wa xafaxat te férféri alayhi ci moom Seydina Cheikh alwiyatu nasri drapeau yi ndimbalu yàlla fi xaasal maydaan ci bile lef amaamal jamaati ci kanamu mbooloom nitu yàlla yi bu doon course la moom Seydina Cheikh moom moo nekk ca kanam bu doon benn maydaan la benn champ de course bu ñuy nekk di course moom na Cheikh moo daw ba jël moo moo jël drapeau bi dégg nga fayte leen fayte leen kanam wa azhara tem feeñal dégg Eh, eh, min kunuuzi shariati ci ay trésoru sharia al mutaharati ba di bu ñu laabal moom Seydina Cheikh moo ca feeñal ibrisaha wurusam alxaalisa ba di aji sell sharia bu doon la ca gën a sell wurus la moom Seydina Cheikh bi mu ñëwee moo ko feeñal wa abraza mu génne moom Seydina Cheikh ba tey mu feeñal min bihaaril xaqiqati ci géej yaa moom xaqiqa la réalité yi moom Seydina Cheikh moo ca feeñal xasaisal faraidi yu jagoo ci mbir yu wéet ya wa faraidal xasaisi ak yu wéet ci mbir yu jagoo ya yi nga xamante ni boo jëlee mbir yi gën a tumuranke yi gën a yéeme yi nga xam ne dañoo beru ba kenn amu ci accès yooyu boo leen jëlee ci seen biir la fa gën a am particularité Seydina Cheikh moom moo ko feeñal niki noonu itam yi nga xamante ni dañoo beru mbir yi nga xam ne itam dañoo beru yë ca ëpp valeur ëpp ci particularité gën cee yéeme moom Seydina Cheikh moo ko feeñal kon xasaa isal faraidi bi maanaa dégg nga eh, yi beru te te ñépp amuñ ci accès moom Seydina Cheikh moom moo làq xasaa is moo làq particularité yi eh, niki noonu ba ba tey itam xasaa is yooyu ci boppam boo leen tegoon nga ber ci yenn itam yooya beru itam seyd na Cheikh radiallahu taala anhu moom kese moom moo ko moom moo ko dajale wa jaa moo tax mu ñëw fii asaalibi dalalati ci ay façon yi tegtale alallaahi ci yàlla taala yàlla mu kawe mi moom Seydina Cheikh mu mu indi ci bi maa ci loo xam ne lam yusbaq maseefu la jiitu ilayhi jëm ci loolu Seydina Cheikh kenn mësu ko ci jiitu façon bi mu indee dundalaat yoon nitu yàlla yi façon boobu kenn mosu koo indi avant moom wa ata tem dikkee eh, dégg nga fii masa fii masaaliki tarbiyati ci soobuwaayu tarbiya éducation spirituelle wa tarqiyati ak yéeg te mooy ascension spirituelle mu indi ci bi maa ci loo xam ne lam yu arrij mësul yéeg alayhi ci loole ahadun kenn li buluuxihi ngir jot gim jot radiyallahu radiya yàlla na gërëm allahu yàlla anhu wali sayyidina Cheikh ngir jot gëm ca jot aqsa darajaatil kamaali la gën a kawe ci darajay mat fii jëm fil jëm i ci dajale gim dajale baynal ilmi ci diggante xam-xam wal xaal ak uh, état bi muy nekk état bu mat wal himmati ak yitte wal maqaali ak wax xam-xam Mawlaana Arabi Saayax nee na Seydina Cheikh radiallahu taala anhu dafa ràññeeku ci biir nitu yàlla yi comme ni mufradul alam ràññeekoo ci naxwu nga xam ne buñ ko woowee rek dañ koy rafu moo tax Seydina Cheikh dañ koy woo yëkkati ko ci kaw mu ne nag mboolem maqaama wilaaya ci Seydina Cheikh la yem euh, dégg nga drapeau yi ndimbalu yàlla dégg nga bu fekkoon dañoo ne ci benn champ Seydina Cheikh moom moo gañe moo jël drapeau bi euh, moo tax mu feeñal ci trésoru sharia sharia bu laab bi Seydina Cheikh moo ca feeñal wurus bu sell ci géeju xaqiqa itam ya jagoo ci mbir yi moom moo ca ber ay may dégg ya ca beru itam moom moo xam jagoo ya moom Seydina Cheikh mu ñëw ci ay façon tegtale ci yàlla loo xam ne kenn mësu koo jiitu ci moo tax mu indi ay sóobuwaayu ci tarbiya ak ci yéeg ci sa wàllu yàlla ci loo xam ne kenn mësul yéeg ci yéeguwaay yu mel noonu ndax jot gim jox jot gim jot moom Seydina Cheikh dara yi gën a mat euh, dégg nga ci dajale gim dajale diggante xam-xam ak diggante melo bi bi bi meloo nga xam ne boo ko xoolee rek dégg nga di xam ni di di di yéeg ci sa ci sa wàllu yàlla ci boo ko xoolee rek ci ci ni mu mel ak yitte gi mu am ak ni mu doon waxee di tegtale tegtal taalibe yi seen boroom mu ne moom mawlaana al arabi ibnu saaih fa ussisat moo tax ñu fondemaawee tariqatuhu tariqaam ala ala taqwa minallaahi ci ragal yàlla wa ridwaanin ak ci làq ngërëmu yàlla wa suydat ñu dëgëraleef euh, dégg nga wa suy dat te dëgëraleef ko moom tarixam minal ilmayni ci ñaari xam-xam yi az te mooy xam-xam bu feeñ wal baatini ak xam-xam bu nëbb ala aqwamil qawaidi ca gën jaa jub ci ay règle wa aqwal arkaani ak gën jaa dëgër ci ay ponk wa uyidat dëgëraleef ba tey min anwaaril hidaayati ca leeru njub wa asraari al inaayati ak ci ay mbooti ndimbalu yàlla bi awdaxi dalilin ci gën jaa ci tegtal wa ci lay fa moo tax mu mat an nafu njariñ bihaa ci tarixa bi fi saairil aqtaari ci mbooleem gox yi wa shaafiil asqaa'i ak ca way sori ci gox yi wal buldaani ak ci dëkk yi Mawlaana Al Arab ibnu Saalih nee na tarixa Seydina Cheikh radiallahu taala anhu fondement wam mooy ragal yàlla ak wut ngërëmu yàlla mu ne moo tax ñu dëgëlëree tarixa bi ñaari xam-xam xam-xamu zahir ak xam-xamu baatin euh, mu ne moo tax tarixa bi euh, ay règlement yu règle yu yu jub ak ay ponk yu dëgër ñoo ko té te boo xoolee ni wirdi bi demee ak ni shurul fi demee nga xam ne loolu am na mu ne tarixa bi dañ koo dëgëralee ci leeru njub ak ci sëkkëri ndimbalu yàlla euh, ci ay dalil yu wér ak ci ay lay yu wér moo tax mu jariñ mboolem dégg nga dëkk yi ak mboolem dégg nga wàll yu sori yi ak dëkk yu sori yi ba tey waxtu sa moo tax jaglee feef wirduhu wirdam moom seydina cheikh al muhammadiyu al lafz al muhammadiyu lafzi ngay kojuk yonent bi sallallahu alayhi ci baat wa tarti bi ak ci toftale ndax yonent bi sallallahu alayhi moo ko jox baat yi moo ko ko toftaleel waaye al sirri ngay kojuk Euh, dégg nga ahmadiyatu ci mboot wa tarki bi dégg nga ak ci toggale niñ ko composé ak sëkkëram ci xaqatul ahmadiya la waaye mën ngaa wax ba tey ci xaqatul ahmadiyatu tijaaniya la bi maanaa euh, euh, lafz bi ak tartib bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam la waaye sirru bi ak bi Cheikh Ahmad Tidiane la neexee nga ni al lafz wa tartib xaqatul muhammadiya la waaye nag as sirru wa tarkib xaqatul ahmadiya la bi taxqiqi sayri ci dëggal sóobu gi ngay sóobu dégg nga dox bi ngay dox ci sa wàllu yàlla fi maqaamaati diini ci maqaamay diine assalaasati ya di ñett te mooy al iman wal islam ak al ihsaan wa saairi manaziliha ak mbooleem seen ay wàccuwaay alal uslubi ci façon dégg nga ci doxalin al garib bu yéeme wala mën xëji ak ci yoon ba al ajibi bu yéeme ba tey wala nga ni alal uslubi ci ab façon al gharibi bu tumuranke wal manhaji ak ci yoon al ajibi bu yéeme kama yatabayyanahu comme ni mu ko leerloo ni mu ko leeralee al munsifu euh, dégg nga al munsifu ku maadu allazi ka nga xam ne ku xilat dañoo tusgal aynuhu bëtam bi ismidil anwaari ca tusgalu ay leer al imaan yi ko jóg gëm yàlla Euh, bil wuquufi ci mu taxaw alayhi ci loolu ñu tudd maanaa ci manhaj boobu ma mabsuutan mbir moomuy luñ tàllal fii kitaabi mizabi rahmati rabbaaniyati ci téere bi tudd mizabu rahma dégg nga rabbaaniyati fi tarbiyati bi tarixati tijaaniya ki ko taalif mooy sayidi ubayda ashinqiiti waxoon nañ bi eh, ca tarjama ba ne bokkoon na ñi nga xam ne jox nañ eh, ijaazaal nañ mawlaana al arabi ibnu saay wa yataxaqaquhu te mu wóorlu ko asaaliku ki sóobu ci yoonu yàlla almuxaafizu ki nga xam ne dafa sàmmonteeg ala haazal ahdi ci bile kóllëre fi sirri ci lu nëbb wala alaaniyati ak ci lu feeñ min tariqi zawqi ci yoonu mos mbir yi ba xam ko attaami bu mat sëkk bil ci contemplation al iyaaniyati al euh, tarixa bi dañ ko Euh, dégg nga jagleel wird boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi moom moo jox Seydina Cheikh baat yi te moo ko toftalee waaye Seydina Cheikh ci moom la sirru bi nekk ak ci dégg nga euh, ak compo niñ composé wird bi ci nga xam ne dafay dëggal moom wird bi boo ko toppee euh, diggante laazim ak wasifa ak xadaratul juma taalibi tijaan bi da ci dëggalee yoon jël bi mu jël yoonu yàlla ba réaliser ci maqaama diin ñett yi te mooy imaan islaam ak ihsaan ak manazil yi mu àndal yépp nga xam ne loolu incha allah moom ci boppam dina ko leeral ci biir dina am lu mu ci leeral euh, waaye euh, ci beneen façon waaye boo bëggee lu ci gën a leer mu ne da ngay dem ci misabu rahma walla nga dem ci iraatu arais bu imam al baqili euh, yooyu di ko fa fekk ñu tàllal ko fa waaw mu ne nag képp koo xamante ni eh, mu ne nag tarixa bi eh, loolu daf koo def ci façon boo xam ne bu yéeme la ak ci yoon bu bu bu tumuranke eh, comme képp koo xamante ni yàlla dimbali na la ba sa bët yi ñu tusngalee ko leeru ngëm yàlla loolu di ko di nga ko xam te yàlla dina la dimbali nga dem ba fekk ko ci téere bi nga xamante ni mooy misaabu rahma ar ya fi tarbiyati bi tarixati tijaaniya bu boobaa ki nga xam ne dafa sóobu ci wàllu yàlla fi nga xam ne dafa sàmmonteeg kóllëre tariixa bi ci lu nëbb ak ci lu feeñ dégg nga dana dem ba am ci euh, zawq bu leer ba xam ni mbir mi exactement lii la bu doon géej la du yem ci gis ko kese dégg nga dégg ko waaye day ñëw ba mos ndox mi ba xam ni saf na xorom fala jarama sikki sàkk amul ana laaha ne yàlla taala yàlla mu kawe mi ahyaa dafa dundalee bihi ci tariixa tijaan wala ci seydina cheikh marasima sunnati dégg nga mandargay sunna baadan diraasiha ci ginnaaw bi mu ràppee wa awdaha moom yàlla mu leeralee bihi ci moom maalima tariqati dégg nga mandargay tariqa baada xafaay asaariha ci ginnaaw nëbbuk ay jeexitam wa atlaa mu fenkal bihi ca moom chamsal xaqiqati dégg nga jantu xaqiqa dégg nga jantu réalité mbir yi baada ufuuliha ci ginnaaw ak soom wa sitaariha ak ginnaaw ak nëbboom moom naa Cheikh radiyallahu taala anhu mu ne sikki sàkk amul ci ne moom màndarga yi sunna ba muy ñëw fekkoon na mu ràpp waaye yàlla ci moom la jaarale dégg nga sunna yëkkati ko waat euh, dégg nga màndarga yoon nitu yàlla yi itam ginnaaw bi mu nëbboo dégg nga ba kenn gisut sax jeexit yi bu doon bâtiment la raaf na ba kenn gisatul sax fondement bi fan la woon ah ci naa Cheikh la ko yàlla jaaralee mbir mi yëkkati ko waat moo tax mu ne ci yàlla la ci Seydina Cheikh la jaaree dégg nga jantu xaqiqa yàlla fenkal ko ginnaaw bi nga xamee ni dafa soowoon mu ne walillaahi kéemtaan ñeel na yàlla darul àllaamati baaxu boroom xam-xam bu mag ba dégg nga darru ci laban lañ ko doon jëfandikoo ci soow moo tax wolof yi bone darul qaa'ili ñu naan neexu soow ndeyu aji wax ji waaye bi maanaa ci baaxam rek al muhaqiqi ka di aji dëggal kookal la cheikhil machaayix yi mooy sëriñu sëriñ si cheikhi machaayixil ulumi naqliyati wal aqliyati mooy sëriñu sëriñi xam-xamu toxal yi ak xam-xam ya ñuy xellu xam ko al mubarazika di ku raw ala ahli yi ci ñoñ jamonoom fi taxqiqil juziyaat ci dëggal xam-xam yu dégg nga yu beru yi min ci dégg nga ci ulum yi dégg nga wal kulliyaat yi ak euh, yi nga xam ne ñooy xam-xam yu général yi xam nga juziyaat ci xam-xam yi mooy ni ki boo jëlee naxwu boo jëlee euh, afwan euh, fiq boo ne kulliyaat yi mooy xawaa mooy xawaid yi mooy règle yi nga xam ne ci lañ tëral fiq waaye boo nee juziyaat yi mooy furoo mooy fiq bi ci boppam waaw donc juziyaat yi mooy tasaaroo yi mooy branche yi waaye boo nee alkulliyaat mooy mooy mooy règle yi ki nga xam ne da koo xamoon bu baax kookan la abi zeyd mu ngi tudd abi zeyd sayidi abdirahman ibn ahmad kay doomu ahmad ashinqiti almutawafaa ka faatu bi faasil ulyaa ci faas bu kawe ba euh, dégg nga fii shawaarin ci weerub shawaal sanata 1224 année 1224 hijriya xaysu qaala ci foo xam ne wax na fii ma nasajahu eh, ci li nga xam ne ràbb na ko fii madxi sayidina ci tagg suñu sëriñ radiya yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci sayidina cheikh ala abdai min waalin mu rabbe ko ci gën jaa yéeme ci rabbuwaay wa ajabi misaalin ak gën jaa yéeme ci melal euh, Mawlaana al Arabi ibnu Saayix nee na mu ne mu ne daal moom mi ngi yéem boroom xam-xam boobu nga xam ne dafa dëggal mbir yi nga xam ne xam-xam yi ñuy toxal ak yi ñuy xelu yépp moom moo ci sëriñu sëriñ si nga xam ne dafa raw ci jamonoom ci xam-xam yu Euh, euh, banqaasu yi ak xam-xam yu cosaanu yi kookal la mu ne mi ngi tudd Abu Zayd Seyd Abdurahman ibn Ahmad Ash-Shinqiti nga xam ne mi ngi faatu ci année 1224 euh, ndax dafa def benn qasida qasida boobu dafa am lu wax ci biir doon ci tagg Seydina Cheikh radiallahu taala anhu moo tax mu ne mu ne ahya tariqata ahlillaahi fahiya bihi muallafun chamluha walkasru majbuuru cheikhul mashaayixi man fi tayyi burdatihi jaybun ala nuuri wal asraari mazruuru mandaaruhu jannatul firdawsi wa huwa biha ridwaanu xaadinuha azkaaruha alxuuru yafiidu min salsabili zikri kawsaruha fashrab mufajjaraha fa anta majuuru awraaduhu an rasulillahi qad ruwiyat kadaaka afaaluhu wa sirru masuuru fanqul fadaytuka fi aathaarihi qadaman fa in faalta fa daaka naqlu madxuuru waxris bi an tantami yowman li jaanibihi fa xaddu man yantami ilayhi mawfuuru mu ne ahyaa moom seydina cheikh dundal na tariqata ahlillaahi yoonu nitu yàlla yi fahiya ba tax yoonu nitu yàlla yi bihi ci seydina cheikh mu allafun lu ñu dajale la chamluhaa mbiram te mbir moom wal kasturu la dam woon majbuur luñ jañ la bu doon fracture la tabaxaat nañ ko ba mu normal plâtre waat nañ ko ba mu normal cheikhul machaayix yi mooy sëriñu sëriñ si man ka nga xamante ni fii tey yi burdatihi nekk na ci lemub e, mantoowam jaybun ab poche mazruuru ba di buñ gaw moom dañ koo ñaw takk ko alal nuuri ci leer wal asraari ak mbóot man mooy ka nga xamante ni daaruhu këram jannatul firdawsi mooy àjjanay firdawsi wax wëtte mbir moom ridwaanu mooy malaakam ridwaan sayidna cheikh bu doon këram mooy firdawsi moom sayidna cheikh mooy malaaka ridwaan boobu yërmande boobu Eh, dégg nga eh, dégg nga eh, dégg nga ridwaan mi nga xam ne xaasinuha mooy gardien àjjana dégg nga te azkaaruha mbir moom ay sëkkëreem ay zikkaram azkaaruha ay zikkaram alxuuru mooy xuurul ayni kon danga naan Seydina Cheikh man mooy ka nga xam ne daaruhu këram jannatul firdawsi mooy àjjanay firdawsi wax wate mbir moom bi xaa ci àjjana ba dégg nga moom seydinaa Seydina Cheikh eh, xaasinuha gardien àjjana ba mooy ridwaanu ridwaan dégg nga te azkaaruha ay sëkkëreem alxuuru dégg nga azkaaruha ay zikaram alxuuru ñooy xuurul ayni yi kon danga naan cheikhul machaayixi sëriñu sëriñ si man ka nga xam ne fii tey burdatihi nekk na ci lemu mantoom jaybun ab poche masruuru bari buñ gaw ala nuuri ci leer wal asraari ak mbóot man mooy ka nga xam ne daaruhu këram jannatul si mooy ajjanay firdawsi wa huwa te mbir moom bi bihaa ci ajjana ba xaazinuhaa euh, gardien ba ridwaanu mooy malakam ridwaan bu doon tarixa Seydina Cheikh mi nga xam ne moo lay garde di la jox teraanga yi dafa mel ni mooy Seydina Cheikh te azkaaruhaa zikkar yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir tarixa bi boo ko doon melal ak àjjana danga naan alxuuru mooy xuurul ayni ya nekk ca biir àjjana yafiidu min salsabili zikri kawsaruhaa fashrab mufajjarahaa fa anta majuuru yafiidu dana ball kawsaruhaa eh, dégg nga mbalkaam moom àjjana boobu min salsabili zikri ci sàngara su neex saa moom zikkar la kon nag fashrab naanal mu la ñu ballal ci sàngara sa bu neex boobu fa anta yow daal majuuru ku ñu yoolal nga kuñ jox ajru nga waaw salsabil fii mën nañ koo firee eh, sàngara majaaz bi maanaa eh, lu neex daal aywa awraaduhu ay wérdam qadru wiyat soloof na leen an rasulillahi jëlee ko ci yonentu yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam kadaaka niki noonu afaaluhu ay jëfam wa siru te mbir moom secret ba ma suuru lu ñu soloo la dégg nga fanqul na nga toxal xadaman ab dëggu fi asaari yi ci ay jeexitam Seydina Cheikh fu mu teg tànkam teg fa sa tànk fa daytu ko yàlla nañ la jotoo jumla du'a yi la fa in soo defee loolu bi maanaa nga teg sa tànk fi ko Seydina Cheikh teg fa zaaka naqlu xamal ni boobu toxal sa tànk de mazxuuru lu ñu dëxëñ la bi maanaa am na mbóot yuñ la ci dencal di la ko jox wax waxris na nga xër bi antantami ci ngay askanoo yow man bés bi jaanibihi ci wàllu Seydina Cheikh ndax fa xaddu man cëru ka nga xam ne yéen tamit day askanoo ilayhi ci Seydina Cheikh kooku di cëram mawfuuru lu ñu barel la kon gis nga xasida bi euh, la tudd moom Mawlaana al Arabi ibnu Saaih ne Seyd Abdurahman ibnu Ahmad Ashinqiiti moom tagee Seydina Cheikh xasida bi mi commencé tijaanu naa baytuhu bi zikri mamuuru bi salaati wa bil xayraati maxmuuru muwaqqatun fihi dikrullahi ma talaat shamsun wa ma garubat wa zaaka mashhuru mi ngi ci biir jawaahirul maani eh, ci la demee ba ci fin bi mu ne wala eh, wal eh, walaasi mawraadahu fi nafsi aw mala in fa zakirullahi indallahi mazkuru nee sax na nga taqoo ak wérdu Seydina Cheikh ci mbooloo dégg nga ak ci sa bopp yow ci boppam ndax ku tudd yàlla rek xamal ni kooku yàlla mi ngi koy tudd euh, kon kii dafa tagg Seydina Cheikh pour wane ni effectivement tarixa bi bi mu ñëwee li nga xam ne dafa ràppoon ci yoonu nitu yàlla yi moom moo ko dundalaat euh, kon danga naan ahyaa dundal na tariqata ahlillaahi yoonu nitu yàlla yi fexe te mbir moom yoonu nitu yàlla yi bii ci Seydina Cheikh mu allafun lu ñu dajale la chamluhaa mbiram wal kasrute mbir moom damm damm ba majbuuru luñ jañ la cheikhul machaayix mooy sëriñu sëriñ si man mooy ka nga xam ne fii tey burdati yi nekk na ci lemug mantowum jéy bun ab poche masduru bari buñ gaw ala nuuri ci leer wal asraari ak ay mbóot man mooy ka nga xamante ni fu këram janatul firdawsi mooy ajjane firdawsi waxu te mbir moom bi bihaa ci ajjana jooju xaasinuhaa gardien ba ridwaanu mooy ridwaan de te mooy sayidna cheikh ci biir tarixa bi azkaaruhaa te ay mbóotam boo ko comparé ak ajjana alxuru mooy xurul ayni yi yafiiru dana bëbb kawsaruhaa mbalkaam min salsabili zikri ci sàngara su neex saa moom dikkar la kon nag fashrab na nga naan mu fajjaraha la ñu ballal ca sàngara sa fa anta yow daal majuru ku ñu jox ajuru nga ku ñu jox yool ga awraaduhu ay wérdam xat ruyat soloof na ko an rasulillahi mu bàyyi koo ci yonente yàlla bi salallahu alayhi wa sallam kadaaka ni ki noonu afaaluhu ay jëfam wa sirru tamit moom mbóot ma suur luñ soloo la kon nag fanqul na nga toxal xadaman ab dëggu mi fii asaarihi ci ay jeexitam fa daytu ko yàlla nañ la jotoo fa ko defee fa zaaka naqlu boobu ngay toxal googu ngay toxal sa tànk di dem topp saawoo saawo sayidina cheikh yi madxuuru lu ñu dëxëñ la waxris yàlla na nga xër wasris waxris xëral bi an tantami ci nga askanoo yow man ab bés li jaani bii ci wàllu sayidina cheikh del askanoo ci sayidina cheikh rek fa xaddu man ndax cëru ka nga xam ne yentami day askanoo ilay ci sayidina cheikh mawfuuru luñ bari la moo tax mawlaana sayd ali tamasini radiallahu taala anhu boo ko buñ ko mësaan laaj ne ko yow wax ñu sa askan danaan man la dégg nga ana ali ibn ahmad tijani ibn rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kon moom benn askan rek la reconnaître mooy askanoo gi mu askanoo ci sayidna cheikh radiallahu taala anhu euh, kon xam naa ñu yem fii insha allah ba beneen darse bi ñu continuer allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima axlaq walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم